bi ne nga amul njariñ mais aussi euh, est-ce que nekkul benn effet boomerang maanaam image du Sénégal moo ci yàqu parce que jii ni on en parle à travers le monde rawatina euh, ci réew yi nga xam ne jàppoon nañu Sénégal dafa am fu mu weesu lu bëree bëri. man dama jàpp ne euh, Antoine Diome Aïssata Tall Sall Ismaïla Madior fal dañoo atteindre seen point de saturation. ça veut dire fi ñu nekk ni yàqal yàqal Sénégal rek la ñuy def mais nekkatuñu ci defar dañoo dañoo atteindre seen point de saturation Euh, président de la république booy booy booy gérer dëkk da ngay dem ba si nga xool sa ministre yi xam ne ñii yoon bi ñu jël. Mhm. duñ ci amati do mënatuñ cee defal ci lu lu sénégalais yi xool. Mhm, mhm. lu yàq rek la ñuy def Aïssata Tall Sall Antoine Diome ak Ismaïla Madior ak Ismaïla Madior atteindre nañ seen point de saturation. bu leen fa jëlewul na leen changer le ministère fu ñu leen nii. les sénégalais n'ont plus confiance en eux en fait. duñu leen sax déglu lu ñu wax duñu ko déglu duñu leen sax déglu et puis bu bu ñu demee ba di leen ridiculiser ay ministre lañu quoi. état. pour ñu nit ñi dañoo war a respecter état parce que moom lañ bokk ñun ñëpp moo tax ku ñu ko dénk war a koo fooye du caaxaan gis nga politique war nañoo fexe ba mën nañoo politique mais gis nga ministère de souveraineté mm-hmm. warul perdre dignité am te pour man ñu ngi commencé di politique politique ba léegi il se permet tout quoi mm-hmm. après mel ne da ngay toog ba chàgg tu te ni booy nekk naan lii baaxul baaxul da ngay dem ba chàgg sax yow yow yow mi yaay mel ni yow yaa bon léegi parce mm-hmm. que les gens se permettent amatuñu amatuñu limite parce que man su ma toogoon fii Mohamed Mamadou nga ne ma euh, may mun a may mun a day may mun a nduur <laughs> dama ko nam moo tax. may mun a may mun a jihadiste la xamal ma la waaye procureur woo na ko nee na ko mandat d'arrêt international wax wax wax ma ñëw fii nga may naan. xaalis nañu wax ci mandat d'arrêt bi bon lal loi est-ce que nuñ ko nuñ ko war a appliquer ma lay tontu loolu ñàkk fayda la parce xam naa ne même na lu ñu ko teg lépp dara du ci dëgg. Mm-hmm. au lieu ñu xam ni la prémisse les prémisses majeures son fausses ñu régler ko dañu discuter ci ci ci ci ci ci conséquences yu prémisses yooyu. Mhm. nan non léegi loi bi la wax léegi nan la ñuy def ci loi gi demee na il faut que ñu rectifier yooyu xam ni fi ñu toll ci état expérience bi et Sénégal am depuis 63 ans dafa am loo xamante ni jeexoon na pour ñun am nañ administration bu wóor état bi dëgër na. Mhm. soxlawuñ di ko di ko jéem a yëngal di xool ndax dëggal na mais dañoo commencé woon dañoo waroon commencé benn phase te président Macky Sall déclenché ko muy benn Sénégal boo xamante ni maintenant day dem sur un plan Sénégal boo émergent boo xamante ni romb na mandat yàlla def ñu trouver gaz trouver pétrole war a xool nu ñu koy war a gérer boo amee administration bu dëgër. am état bu solide sax la waxoon mais mais mais loolu warul yàqu. maintenant nag léegi dañ ko faa teg fi ñu nekk nii président bu ñëwaat 2024 li ngay njëkk def mooy refondation institution yi. Mhm. parce que amul benn sénégalais bu jàpp ni institution yi lii mu mel nii. satis am na ci am na ci am na ci satisfaction day dem ba chag bu waruñoo ridicule te pour ñu bañ a ridicule nag pour man ministère yooyu atteindre nañ seen niveau de saturation nañ ci président dimbali. Mhm. mais pour ce qui